du ma ci keneen sax mais comme yéen da ngeen a doy waar yéen waa presse ba ngeen xam toujours Me El Hadji mu xalaat te comme Me El Hadji Diouf leader d'opinion la ma daw waaye li am li am dafa ñaaw dafa rafet ba pare ñaaw rafet bi mooy ki fi toogoon muy Aliou xam ne yàlla mooy fal mooy folli ginnaaw ñu folli ko dafa félicité Ahmed Aïdara mi ko remplacé donc kooku buy Aliou Sall xam na luy démocratie ndax moom jàng na waaye yàlla mooy fal nag mën na fal dof sax mën na falu Hitler falu na fi dictateur day falu mais dama gis ñaar yoo xam ni Ahmed Aidara def na ko yoo xam ni du lu ñuy def mais comme naa fekk dafa law ci réew mi politique seytaane ak sos ak fen ak wuruj di daw ci réew mi ñu bëri ñu ne parti ni miig bëgg a tourner affaire bi neneen ginnaaw rafet am na mooy Aliou Sall xëccoowul place bi amet léegi ñu war a fal ñeneen ñoo xam ne duñu ñoom duñu duñu amet waaye amet amul majorité bu war a tax mu am ay adjoint yu mu àndal mu war koo nangu nag waaye ñëpp gis nañ vidéo bi mu moom day bloqué wat bi day saboté wat bi ndax bu continuer adjoint yëpp dañ koy rëcc pourtant moom poste am rëcc ko nit day dooru ci gëm yàlla ginnaaw yow am nga poste bi gën a rëy waaye yàlla may na majorité absolue bu ñu voté waa wàllu ak ñeneen ay ay buntu bee ñëpp ànd ak bennoo yow loo ci man nañu bàyyi di kàcc di fen di manipuler naan waaw bu ñu tourné vote waa ah, Guédiawaye Ahmed lañ fal maire directement loolu loo bee ko wax waaye joxuñu ko majorité absolue loo bi moo wax loolu kon lu fi am lu bees lan la préfet bi def lan la Aliou Sall def lu may bi ñuy voté moom comme falu na directement ñi ci des mënu leen a am mu ne tey musiba am waaye léegi nag li ma seetlu mooy kon dictature bi ma doon wax ci groupe boo bande boobu groupe bi ñu taaloon sama kër comme man ay bande taal sama kër ne ay nit ñu yiw taaluñu sama kër groupe yi ak seen patron yooyu ki xam ne ñoom taal jàpp ay otage ay rebelle lañu. ñooñu nag damay bëgg di xeex ñoom ba àdduna bi tukki waroon naa ay dictateur lañ ndax jëlagoo nguur ku la contre ñu saaga ko saaga ndeyam jëlagoo nguur ku wax ñu taal këram ñooñu ñoo bëgg a jël réew mi du ma ko masa nangu tey ay dara wara na ni ñoom dictature ci la ñuy dox ndax ginnaaw ñu fal ko maire ñëpp nangu ko ko mu xam ne mënuloo am ay vice président euh, adjoint maire yu ànd ak moom ndax amul majorité absolue mu daal di levé naa séance bi waaw pourquoi muy levé séance bi ndax amatul mu amatul majorité mais ñi ko jox majorité mu nekk député mu nekk maire de Guédiawaye ñoo jox yeneen parti ay conseillers bu ñu mboolee seen i mbooloo am ay adjoint maire mu bëgg adjoint maire yëpp moom mu am ko nekk buur di bumi loolu muy dictature yàgg naa ko wax xale yi band yi bëgg a jël réew mi këf ko ak xale saragakat yi nekk géeje way bandi salta yi di tux yàmbaa ci dëkk bi ñooñu ñoo bëgg a këf Sénégal yore ko ëllëg ah non kon dina fekk met El Hadj Diouf seen kanam barke alxuraan lu leen jaral ci bandi ci nin ñi ci taal kër jàmbur taal sama kër di saaga journaliste ba journaliste yëpp ragal leen di pat ba di leen neexal man kenn dinaa jëloog ñoom barke alxuraan ma di leen ni liggéey wane nañ seen kanam yow jëlagoo sax mairie da ngay changé turu turu mbedd yi nga fekkoon Ziguinchor xanaa yow berk yow kenn yaay décidé yoxoo sax cër conseillers municipaux yi dictature commencé na di man tuddum man kenn dara bu ma tey suba ma changé rue yi commencé De Gaulle mu ñu may indépendance mu tuddee ko neneen dañuy saboté dafa am ñoo xam dañoo pour taal Sénégal ay jihadistes yu bon lañu ay salafiste ñu toog toog pour tasul réew mi man El Hadj Diouf du ma ko nangu. naa ñu ngi benn affaire yàlla moo leen weer am micro génn ñu dégg Ahmed Aïdara di wax naan dana bloqué wat bi ndax bu continuer duñu am adjoint waaw yow nga am maire bi gën a fort keneen bu nga am adjoint nga ñaanle ko moom argent yaa moom argent yëpp pour lan te amoo majorité ñii koy jox réew tar réew bi de nag ku wax ñu ku wax ñu tëj ñoo gën a yées ci àddina muy waaye Yewwi maa ko wax. intéressé wu ma ay wax seen biir intéressé wu ma du ma ci wax ñoom it neen la sama yoon nekku ci ñoom it neen nañ lekk di dëmbante sama yoon nekku ci. dossier Adji Sarr waxi jàmbur du wax. man sama wax laa xam Sénégal ma ñor Malick Gakou Abdoulaye Dara c'est pas mon problème c'est mon Sénégal Sénégal gi loi sénégalaise bi falloo maire nii la ñu falee maire mais nii la ñu falee adjoint mu ne moom nekk na maire waaye kenn du falee adjoint maire noonu ñu ko bëggee ni ni ko bëggee lay amee ah non non non non dictature commencé dictature bi mënoo wax ci dof boobu rebelle boobu commencé na fii ndax moom moom ak moom ñu ànd. Sénégal nag rebelle du ko jiite mukk loolu leer wax. fa la toll. du ma ci wax fii nañ dem tribunal danañ ko àtte ci benn bis bu boobaa yéen ñëpp ngeen ñu taxaw ñu xam lépp dëgg la xam ni ku mos Dakar loo xam ni jëw neex. li tax ma laajoo ñu bëri nañu ne euh, procès yi ak tapé yi ñoo koy wax waaye ñun ñu xam dossier xam dossier yëpp day am kooku mooy kan ba du am mooy kan kooku terroriste la moo tax ñu ne du am bu dul terroriste Sénégal yëpp terroriste bu rek. yar rek waaw terroriste ba kenn a àtte du laata te ñu àtte Khalifa Sall àtte Karim Wade moom mooy kat mooy procès du am bàyyi leen di may di di di jay di jay xar bam ni moom ñay la du teg mu tuus du dara lu ngay tapete ñëpp di pot pot yi lan la xale bu tekkul dara yéen ñëpp journaliste ngeen ragal ko pour lan kenn ngeen ñeme ko kenn ni may posé des questions parce que est mas nga ko posé question kenn ci yéen da ngeen ko tapé yéen yëpp benn journaliste du ko posé question mais ngeen boycotté ko comme ngeen ñëwee mu mu ne may ngeen laaj ma ngeen ne benn journaliste du ko laaj dara te bu la mayee ngeen da ñëw bu waxee dem leen maa ngi seen bi pare naa sama wax ngeen di yóbbaale waaye kenn du ma laaj ngeen ñàkk fayda topp ci loolu di ngeen ngeen di ngeen di di korkor yi yéen a ñàkk fayda waaw pour waa ngeen bu leen wooyee tey ngeen di dem nag ku la woo nga ñëw tëralu la loo ko laaj di tas kati xabaar loo ko laaj mu ne bu leen ma laaj dara da leen ñibbi moo la nga ñëwaat yow yaa ñàkk fayda journaliste am na fula waay kii lan la yàlla du yàlla du yeneen am leen fula yéen journaliste yi bu leen wala ba ngeen toog mu ñàkk leen fayda ni kenn du ma laaj dara kon bu kenn bëggul dara leer nañ naan waxam guux ko comme alxuraan dem non am leen fula yéen journaliste yi